waaw man Lamine Diawara laa tudd man maay maire ji Djiréji ji département de Sédhiou la euh, mais en même temps nekk membre conseil économique social et environnemental euh, ci commission wu sport culture euh, tourisme et mais en même temps commission wu industrie nekk euh, rapporteur commission industrie quoi. Euh, monsieur Diawara ñu bëggoon a xam tuuti say jaar-jaar professionnellement avant ngay egg ci politique bi. waaw man de professionnellement euh, ci mbirum développement laa nekkoon euh, d'abord Louga yore benn projet bi nga xam ne mu ngi jàppale artisans yi ci seen concombre bi surtout wàllu renforcement de capacité jàppale leen si wàllu équipement wàllu commercialisation ak wàllu organisation depuis 2000 ba 2001 laa ñëw Thiès. comme euh, chargé de programme toogal fi benn ONG autrichienne bi nga xam ne euh, mu ngi jàppale artisan Sénégal ci wàllu seen promotion euh, am ay bureau ci région yëpp ci biir Sénégal man may joué rôle coordonnateur coordonnateur bi en 2011 mais déjà 2009 commencé naa di yëngatu ci wàllu politique. moo la dugal ci politique bi. waaw politique daal de man daal au fait xam nga man Casamance laa dëkk bien vrai que Thiès laa laay vivre depuis euh, man naa wax ne lu ëpp lu weesu fukki at si euh, diggante bi dinaa daan naa dem Casamance xool euh, seen mbokk yi ak yooyu ci laa gis ni ak décentralisation bi ñun suñu gox bi daal xaw na tardé xaw na tarde lu bare parce que lépp daal ci nguur gi lañu ci doon xaar. alors comme amoon naa ci amoon naa tuuti expérience ci wàllu coopération ma xalaat ni peut-être que côté boobu war naa ci mën a indi samay euh, contribution et que loolu presque boori 2009 mu daje ak euh, élection locale élection locale bu mu jotee population yi proposé ma pour ma nekk euh, foofu comme président conseil rural ci la milité ci benn parti politique Euh, ba élection yi jàll ñu nommé ma comme euh, ñu élire ma comme euh, président conseil rural bu Jiréji léegi moom moo nekk commune ak acte trois bi nga xam ne def nañ communalisation intégral maanaam communauté rurale yëpp nekk ay commune 2014 nekk maire. Ah, ban parti nga demee woon 2000. 2009 euh, maa ngi doon ànd ak sama xarit bi ngay xam ne mooy maire Ziguinchor Abdoulaye Baldé euh, nekk seen parti ñu investir ma si seen liste PDS euh, ba 2011 2012 bi ñu demee ci élection itam ak commune bi ak liste APR nekk maire Jiré ji. liste APR bi yow. c'est ça. léegi yow sa commune est-ce que mën nga ñoo tënkal rek. maanaam jéego ya noo ko fekke woon ak yan jéego nga ci dox ci wàllu développement. waaw mën naa wax ni au fait sama motivation surtout c'était lool la dama fekk ni déjà ci fànn yu bare euh, muy éducation muy santé mën naa wax ni dañu dépendre trop ci euh, capital bi maanaam Sédhiou euh, gis ni wàllu boo demee ba am sa entrée pratiquement xale yëpp dañuy dem euh, Sédhiou wala Ziguinchor pour mën dem jàng euh, collège bi fa nekk benn collège moo fa nekkoon mën naa wax ni pratiquement lépp abri provisoire la woon loolu nekk li nga xam ne daal xaw na ma révolté loo tuuti. Euh, bi ma nekkee foofu en tant que PCR ñu ne bon c'est vrai que collège yi ak lycée yi bokkul ci domaine de compétence su communauté rurale yi waaye comme foofu laa dëkk ma am ay partenaires yi nga xam ne euh, jot naa liggéey ak ñoom si yeneen gox ma woo leen pour ñu ñëw jàppale ñu gungee ñu ci fànn yu bari euh, ci lañ accepté déjà ci wàllu éducation bi ñu toogee ak léegi jàppale nañu ba ñu mën a au moins tabax. Euh, ñetti collège ñetti collège euh, ci commune bi euh, jàppale ñu ba tabax lycée bi et actuellement mën naa wax ni doomu jire ji soxlaatuñu dem jàng feneen avant le bac. loolu mu kii te te ay collège ak lycée bokkul ci compétence su maire yi. waaw en tant que citoyen et ma yaakaar ni buñ naree xaar lépp ci nguur gi te. commune communauté rurale yi bare nañu dem nañ ba ay trois cent et quelques communauté rurale te tam conseil régional bi nga xam ne euh, moom moo yore domaine de compétence boobu euh, gis nañ ni yëngatuwul lu bare yëngatuwul lu bare gisuñu seen impact vraiment ci fànn boobu yaakaar ne buñ ne buñ naree xaar vraiment ba ñooñu décider defal ñu dara foofu xam naa ni dina yàgg dina yàgg moo tax vraiment ñu xool daal naka la ñu mën a réparer injustice boobu bi nga xam ne vraiment parce que nañu wax développement sans éducation e que suñu rakk yi suñu doom yi bu ñu demee ci yeneen réew di jàng dañuy am problème tuteur ak yooyu finalement ñu bare duñu réussir ci jàng bi ça veut pas dire que amuñu volonté mais conditions yi moo xawoon jafe et loolu nekk na li nga xam ne mënuñ ko seetaan noonu il fallait que ñu réagir le plus vite possible. yeneen jéego yoo def. wàllu santé aussi wàllu santé parce que bi ñuy ñëw amuñu amuñu woon sa maternité euh, population bi nga xam ne dem na ba ñaari fukki euh, junni. doomu aadama euh, jigéen yi dem nañu ba fukki junni lu fukki junni jigéen euh, amul benn maternité bu ñu amee euh, problème accouchement ak yooyu dañuy dem Sédhiou cette maternité bi te ay conditions yu difficile parce que ji dafa nekk communauté bi nga bi nga xam ne accessibilité bi dafa xaw a difficile yoon yi baaxul te oto yi bareetuñu foofu nit ñi ay sareet la ñuy uti donc ñu ne le temps comme mënuñu defar. yoon mënuñu defaat tali amuñu moyen boobu amuñu possibilité ko waaye war nañ mën a euh, jéem nañ trouver solution intermédiaire maanaam xool naka la ñuy am ay partenaires pour ñu defal ñu ay maternité yàlla dimbale ñu ñu am ay partenaires suisse yi nga xam ne jàppale nañu ba tabaxal ñu maternité tabaxal ñu euh, kër bi nga xam ne sage-femme fa la war a mën a dëkk nguur gi yónnee ñu sage-femme ak ay matron yi nga xam ne léegi ñu ngi foofu e que loolu def nañ jéego boobu ñu réhabilité itam ay euh, poste de santé yi nga xam ne fekk nañ leen fa ak yenn case de santé et depuis boobu daal macha allah vraiment affaire yi ñu ngi gën a amélioré ci wàllu santé am na yeneen fànn tam maanaam wàllu jeunesse euh, jeunesse bi tam boobu ak nguur yi maanaam benn programme bi nga xam ne mu ngi woon fii mu tudd FNPJ ministère de la jeunesse dañu amoon euh, benn programme ferme jeune jeune dans les fermes agricoles et que loolu euh, jéem nañu waxtaan ak ministre bi ba ñu jàppale ñu dañu am benn ferme en tant que communauté rural ñun affecté nañ jeunesse yi cinquante hectares yi nga xam ñu ngi koy exploité ak équipement bi nga xam ne jóge nañu euh, jóge na ministère de la jeunesse ek loolu itam jëm na créer fixé tuuti jeunesse bi euh, ci wàllu agricole boo demee ci côté jigéen itam def nañ ay jéego ay jéego yu bare sax parce que dañoo seetlu ni jigéen ñi bu ñu nawet bu jotee xëy na dinañ occupé wu pendant deux trois mois et trois mois nawet boobu bu jeexee rek dañuy toog duñ def dara euh, même bu fekkente ne am nañu volonté liggéey mais malheureusement euh, yaari ci kaw loolu ñu uti ay partenaires vraiment nga xam ne jàppale nañu ba ñu aménager leen ay périmètre maraîcher clôturer leen ko defal leen ay teen ak ay bassin nga xam ne actuellement mën naa wax ni région bi daal bokk nañ ci ñuy gën a fournir euh, ay euh, soble ak yenn produit maraîchers et loolu vraiment bokk na ci luy créer richesse ci suñ gox bi au-delà fekk nañ tam ay dëkk yu bëri maanaam village villages amooy lu weesu fukki village yi nga xam ne amuñu sax teen pour fu ñuy amee ndox euh, pour naan pour def seen soxla loolu tam gis ni ay urgence la il fallait que ñu réagir vite te mënuñu xaar lépp ci nguur gi euh, jéem nañu euh, jox village bu nekk benn teen équipé ko ak pomp pour euh, population yi man ci jëfandu mais même temps seen njur yi euh, defal leen ay abreuvoir pour que euh, bétail bi mën a abreuver foofu ak yeneen ak yeneen ak yeneen activités yi nga xam ne ci domaine environnement initié nañu ay reboisement ak population bi mais même temps c'est vrai que zone la bi nga xam ne yàlla jàppale nañu ba ñu am ay garab yu bare e que amoon na yàq lu bare ay exploitation abusive vraiment dañoo taxawal commission bi nga xam ne vraiment mu ngi def ay jéego ak waa Eaux et pour mën a wàññi trop trop dégâts yi nga xam ne ñu ngi koy jànkonteel ci gox bi daal. Euh, li ma jaaxal naka nga mën a naka nga. wàllu culture tam bu ñu ñëwee ñu gis ni euh, suñu commune bi bëri na ay ethnie yi nga xam ne ñu ngi cohabiter et que Casamance dafa nekk zone bi nga xam ne euh, soxla nañu jàmm. soxla nañu jàmm ñu yaakaar ni euh, culture war na mën a war war na mën a boole euh, nit ñi euh, war na mën a tax ku nekk xam sa morom respecter sa morom ñu initié depuis mën naa wax ni 2010 ay journée culturelle bu ñu koy tuddee journée culturelle du Budje def nañu ñaari édition fu mu toll nii vraiment fu nga xam ne dañuy réunir ethnie yëpp Euh, pendant trois jours soixante-douze heures vraiment ñuy weccante ku nekk di wane ni ngay toggee nu ngay dundee euh, ni ngay feccee vraiment et puis jox opportunité jeunesse yi nga xam ne ñu ngi yëngatu ci wàllu musique pour ñu mën a wane seen capacité ak seen man-man waaw yow réalisation yëpp naka nga ko defee te yow sa dëkk mu nga ci Casamance yow nga résider fii Thiès te loolu dafay medd sax maire fantôme nga wala leneen naka nga fan naka nga mën a defee réalisation yëpp ci condition yooyu. waa xam nga euh, affaire yi mbir mi daal euh, gëm la gëm la euh, man kenn forcé wu ma pour ma nekk président conseil rural kenn forcé ma pour ma nekk maire. population xëy na bëgg nañ ko waaye man maa jël sama initiative bopp pour dem te demuma pour toog seetaan. Euh, am naa occupation trop ci yeneen fànn wàllu euh, acteur de développement la mais dama gis ni sama gox bi il fallait que man tam ma jouer ci sama rôle sama rôle pour man quelle que soit la distance bu ñu bëggee def dara fenn dinañ ko mën a def parce que technologie dafa avancé en matière de communication euh, mën nga jot saa su nekk heure bu nekk lu xew sa dëkk war nga ko mën a xam téléphone yaa ngi dox internet baa ngi dox ak lépp benn ñaareel ba yàlla may na ma peut-être que ma am possibilité euh, facilité mobilité mobili mobili am naa mobilité Euh, say bu ñu ma soxlaa même 48 heures 24 heures avant lu ñu ma soxla man man naa fa war a ma teew donc malgré que ma nekk euh, Thiès waaye dina dinaa fexe ba weer bu nekk dinaa def ñaar ba ñetti yoon ci sama commune bi nemmeeku population xool nu ñu kii et ma yaakaar ne loolu vraiment euh, même bu fekkee li ma jot a def actuellement même bu fekkee maa ngi fixé wu à Djiré Ji de façon permanente loolu xam naa ni mënuma weesu li may jot a def daal en tout population yi sentir ñu sama absence te ma am équipe bi nga xam ne vraiment mi ngi toog foofu di surveiller di communiquer en permanence euh, ak man daal. Euh, fii ci Thiès ci sa quartier Mbour trois xale yi dañoo xëy dajaloo def le président ASC bi euh, yow naka naka nga yëgee loolu ak ban jàngat nga ci def. waaw xanaa mbégte xam nga ñun dañoo nekk quartier bi nga xam ne mi ngi à cheval entre Mbour 3 ak route de Dakar 2. mën naa wax ni quartier bu bees la man bi may dëkk foofu euh, mën naa wax ni c'était ay boor yi 2004 la 2004 2005 boobu barewuloon kër waaye ak développement wu Thiès dañoo gis ni euh, suñ quartier bi dem na ba vraiment nekk quartier bu xaw a te ñu ngi yaa ngi continuer di installer foofu ñu gis ni euh, peut-être lu bari amu fa lu bari amu fa c'est comme nit ñi nekk ci abir àll bi. ñu payi euh, paa yi fa nekk euh, les sages vraiment ñu organiser wu pour ñoom ñu jël seen euh, développement en main et que lépp lu jëm set setal ci wàllu sécurité maanaam éclairage public bi def nañ ci ay jéego dañuy cotiser changer ampoule yi ak yooyu ñu gis vraiment ñu ñu rafetlu ko ñu rafetlu ko jeunesse itam engagé wu ci côté seen seen wet mais war nañ mën a jeunesse itam toog ñu ne war nañ mën a def lu raw loolu parce que xëy na paay ñoo mën a ñoo àgg ba di def lii ñun en tant que jeune war nañu war a mën a def lu plus ñu ne mais pour def loolu il faut ñu am benn statut juridique statut juridique ñu xalaat ni peut-être que ASC euh, war na mën a nekk benn outil bi nga xam ne dinañ ko war a mën a utiliser au-delà des activités de nawetaan nañ mën a def ay activités de développement ci biir quartier bi euh, occuper population bi wàllu éducation wàllu insalubrité ak yu ak yu bëri alors bi ñu ko taxawalee euh, population yi ñëw surtout jeunesse yi ñoo am masse ñu ne bon en tout cas ñaan taxawal bëgg nañ taxawal ASC bëgg nañ nga nekk vraiment suñu président euh, ASC bi mu nekk li nga xam ne kontaan naa ci loolu ñoom ñoo xam parce que bëri nañ foofu ci quartier bi ñoom ñoo xam lu tax ñu porter seen choix ci sama personne mais pour man honneur la te euh, moo tax ma tam ma engage wu vraiment ànd ak ñoom parce que lépp lu ñuy def pour ñun la pour suñu dëkkuwaay la et ñu gis ni euh, acte trois décentralisation surtout décentralisation de façon générale mooy ko population yi nag yi vivre ci benn gox ñoo war a mën a jël seen euh, développement en main en partenariat en parfait ko partenariat avec la commune le conseil municipal bi nga xam ne moom moo moom mooy responsable responsable mbir yooyu yëpp. waaw il faudrait que ku nekk sa kër déjà nga mën a def ay jéego sa quartier nga mën a def ay jéego après leneen li conseil municipal bu ñëwee day gën a yomb après nguur gi tam bu ñëwee day gën a euh, développer rek alors loolu la population yi comprendre loolu laa comprendre ma ne en tout cas du toutes les façons déjà comme ñëw nañu euh, wax nañ ma seen euh, yéene si wane nañ ma seen yéene ci man et que waa man tam waruma leen décevoir alors depuis lors vraiment euh, établir nañ benn plan d'action bi nga xam ne ñu ngi koy dérouler ñu ngi koy dérouler et euh, déjà la semaine prochaine à partir du semaine bi sax à partir du vingt euh, du vingt cinq jusqu'au vingt sept dañoo fas yéene organiser soixante douze heures quartier bi soixante douze heures quartier bi dinañ def ay activités yu bare li ci wàllu éducation dina am ay génie en herbe dinañ def benn cérémonie de lancement officielle ak autorité ak euh, pays yëpp pour harmoniser vraiment suñu vision par rapport ak euh, lu ñu fas yéene def ci quartier bi euh, leneen li tam dinañ defar ay organiser ay match de football benn tournois bu ndaw Euh, def ca tam ay soirée culturelle soirée culturelle maanaam euh, bari na ay ethnie nga xam ne ñu ngi vivre foofu ay séeréer yaa ngi foofu olof yaa ngi foofu joolaa yaa ngi foofu bari na ay ay ethnie et que ñuy pour ñun loolu richesse la loolu richesse la mais il faut nit ñi xam ko nit ñi exploiter ko moo tax dañu bëgg a def euh, déjà le samedi 26. au soir benn soirée culturelle bi nga xam ne ñu wane vraiment euh, potentialité en matière culturelle bi nekk ci quartier bi dinañ organiser tam euh, benn randonnée pédestre euh, ñun ak paa yi ak jigéen ñi vraiment def tuuru quartier bi pour xool vraiment quartier bi nu mu bindoo ak yooyu yëpp ku nekk buñ la laajee sa quartier bi ñaata kër la fu mu limité wu et cetera ku nekk mu ci man ci prononcé wu dañ koy enchaîner ak set setal maanaam comme nawet lañ jógee eh, bari na ñax yenn gox yi dañuy vraiment désherber nettoyer quartier bi et puis comme ñu ngi jublu ci euh, fin d'année bi dañoo bëgg vraiment rafetal quartier bi rafetal quartier bi garab bi fa nekk taaye leen vraiment pour que 2016 bu ñuy dugg vraiment ñu dem ak euh, benn visage bu bu nice daal. Euh, gis nañ ni ASC dañuy am toujours ay problème ci wàllu koom. pour mën a doxal seen activité bu baax ci fànn boobu euh, ban touche nga ci mën a apporté pour mu mën a régler wu. waaw déjà xam nga euh, déjà problème communication débloqué ñu bare. Euh, nguur am ah, nguuru Macky Sall dafa am ay structures yi nga xam ne taxawal na ANP ANPEJ seen structure jeunesse la boo jëlee PAPEJ PAPEJ de dafa yore ay programmes yoo xam ne dañuy jàppale ay jeunes. mais malheureusement jeunes yu bare amuñu information amuñu orientation et que pour ñun ASC bi war na mën a jouer rôle de d'information rôle sensibilisation rôle accompagnement euh, xëy na am na ay jeunes yi nga xam ne ñu ngi jàng am na ñi nga xam ne ñu ngi liggéey waaye am na ñu bëri yi nga xam ne defuñu dara. liggéey foofu et que ASC bi dina leen encadrer vraiment gunge leen conseiller leen vraiment pour que au moins ñu mën a xam fan la ñu mën a am financement pour développer seen activité seen biir jigéen itam euh, c'est la même chose bari na ay programme waaye nit ñi souvent duñu jot ay information ASC taxawal na commission bi nga xam ne vraiment dina yëngatu ci fànn yooyu pour que population yi li ñu soxla ak opportunité yi nga xam ne nguur gi joxe na ko population vraiment ñu mën ci bénéficier wu ñu mën ci profiter souvent c'est par euh, manque d'information par ignorance moo tax nit ñi te dañuy toog nii di xaar fekk dina fi yaakaar dina ñëw alors que yow yaa war a dem uti uti ji ek loolu vraiment bëgg nañ ci def ay jéego yu bari mais en même temps dinañ uti tam euh, ay euh, ndimbal ci yenn ONG yi yenn programme yi nga xam ne ñu ngi fii et dañu lu ñuy xaar rek pour que nit ñi dem seet leen poser leen seen problème loolu vraiment nañ ko def euh, ay jéego te commune bi tam dinañ gën a euh, rapproché wu ci conseil municipal bi vraiment waxtaan ak ñoom par rapport actuellement ñu ngi seen xam naa ni si seen débat d'orientation après dinañ élaborer voter seen budget ak yooyu bu fekkente ne quartier bi wanewul wala amul ambition wala amul vision ci développement ki day day rend difficile liggéeyu conseil municipal waaye bu fekkente ne déjà ñun xam nañ lu ñu bëgg te ñu am vision te ñu pare ñun sax pour def ci ay dugal ci suñu loxo loolu defe naa conseil municipal du ñu seetaan daal. Euh, ñu jeexal benn question politique d'intérêt national politique bi ni mu bindoo fii ci Sénégal ak coow lu bari li sëñ Abdou Aziz si Al Amine démb dafa wax Pape Diop ni nit ñi dañoo maar ci conflit politique yi et que war nañ ci dox ay tànk ndax nit ñi mën a mën a mën a toog waxtaan ba mën a déggoo ñu doxal Sénégal lan mooy say xalaat ci loolu. waaw euh, man li ma xalaat ci mbirum politique Sénégal c'est que euh, politique politiciens dañu bëri wax trop dañu bëri wax trop et souvent euh, li may ñaan pour nit ñi dal jël ay temps lu génn rek ñu toog réfléchir balaa ñuy réagir waaye lu génn rek nit ñi dañuy yàkkamti wax dañuy yàq alors que ñu ñëpp a bokk Sénégal. yàlla dafa def Macky Sall moo nekk président de la République du Sénégal te lu mu wone ak lu muy wax ñu yaakaar ni am na so bëgg na defar Sénégal bëgg na Sénégal développé wu et dama yaakaar ni population yi fu ñu munti toll war nañ mën a war nañ ko mën a jàppale parce que yàlla moo ko teg place bi pour intérêt wu Sénégal ñu bañ a xool personne bi mais ñu xool Sénégal moo fi nekk pour son premier mandat deuxième mandat yàlla moo xam mën na ko ko jox mais tant que ñu ngi koy jéem a bloqué loolu du Macky Sall rek ay perte Sénégal mooy perte et que yu bëree yëpp yóbbul Sénégal fenn opposition mënul ñàkk ci wàllu démocratie opposition mënul ñàkk waaye opposition tam dafa am nu mu war a doxalee dafa war a segg information yi nga xam ne war nañ ci nekk boolo nekk benn tir du faire un tir wala am na yi nga xam ne war nañ ci mën a xëccoo assemblée nationale mi ngi fi am na ay instants yi nga xam ne vraiment ñu ngi fi pour que nit ñi war mën a exprimer wu seen position sans que mu mën a nekk euh, bloqué wala mu mën a wone image bu bon ci euh, ci Sénégal daal au niveau extérieur euh, man en tout cas en tant que élu en tant que homme politique dama yaakaar ne pour le moment le président Macky mu ngi def ay jéego yu rëy. ay e jéego yu rëy te vraiment man ko ci fël maa ngi koy félicité ci lu mu jot a def Tiwaawan ak lu mu fas yéene def euh, ci Tiwaawan parce que euh, ay dëkk la yi nga xam ne euh, ay référence lañu e que dañuy recevoir ay autorité yu bare yu jógee Sénégal yu jógee yeneen réew ñu yaakaar war nañ mën a am ay cadre bi nga xam ne dinañ mën a accueillir vraiment dans un environnement agréable et que tey euh, démb barki démb lu mu jote a inauguré foofu loolu vraiment ñëpp a ci kontaan dañ ci kontaan ñu ngi ko ci félicité autoroute bu mu prévoir foofu ak jumaa bu mu fas yéene àggali foofu vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko doole pour mën a àggali ambition boobu yëpp te loolu du Tivaouane dëgg euh, barki démb rek la jógee Touba. Euh, ñëpp gis nañu autoroute illa Touba bu mu bu ñu démarré ñun kontaan nañ ci ak yooyu vraiment te am na programme bi nga xam ne mu ngi déroulé ci village yi maanaam PDIC PUDC PUDC euh, gis nañu gox yu bare amoon na temps amuloon yoon accessibilité dafa difficile mais gis nañu ay centaine de kilomètres déjà jot nañ ko réaliser ci éducation rurale am na ay dëkk yi nga xam ne mosuñu xalaat ne dañuy am courant te vraiment ñu am éclairage public en tout cas franchement lu mu wone pour le moment daal war nañ mën a am yaakaar ni que vraiment euh, Sénégal dina avancer. Euh, monsieur le maire sa kàddu gu mujj. waaw kontaan ci ci yéen euh, Thiès 24 vraiment ñu ngi leen di seetaan. et que yéen a ngi dérouler euh, information yi di ko wane population de façon vraiment euh, équilibrée et que loolu ñu leen ci félicite leen encourager kontaan ci yéen kontaan ci vraiment médias yi yëpp de façon générale parce que démocratie bu fi saxee am ngeen ci wàll parce que da ngeen di tàllal seen micro ñëpp en tout cas ñu leen di félicité bu baax ci loolu ak euh, activité yi ñuy fas yéene déroulé euh, suñu quartier bi vraiment euh, muy Mbour 3 route de Dakar 2 vraiment ñu ngi woo ñëpp la semaine du les 72 heures du 26 au du cinq au vingt des décembre prochain vraiment ñu ñoo xool vraiment culture suñu gox bi ak euh, lu ñu fas yéene dérouler comme euh, action de développement pour suñu quartier bi daal